yumarukuma wajma bamarukuma wajma to sappo ma dokki ma wajata ala gaynako samaliya yumarukuma wajma bamaruk to sappo ma ndukkiima ma jotaama alaa gaynaa ko papa jaay samba jabara sappo waay e eh. ki mooy sa waay mooy sa ndaanaan jantal mara mara mara mara mara ku la way wondeelu doo seen moroom papa njaay danaa la wayal góoro fay eh. fay borom Kër Massar. Gora Fay ndaanaanu Kër Massar yàqul Kër Massar Medina te. Gora Gora Fay. ànd bu yàgg bi mbëggeel gu yàgg gi dëgg la yàlla moo jël li ko neex def ko neex ñëpp nga neex teral nga buur teral baadoola teral nga say maas lu la yàlla may nga bokk kook askan wi yaa gore yaa baax yaa ñaan waajur Papa Ndiaye ndaanaan bi macha allah macha take sina fay sare babo o o ko soybo sunuyi jufi goleje kondinama gura gura fay gura gura borom Kër Masar be mooy siri siri Adama Adama aw buru kër mooy baayu Xadija daanaan di gura mu mel ñay laaj ndax rëy na papa Njaay doo seen moroom Njaay jaata Kusa wala boss woto wat pap woto wat papa njaay woto wat papa woto wat papa njaay woto wat jaba woto wat international woto wat cegam do borne yow la xal kural jogo jombaje arana dago papa njaay papa njaay ndaanaan ari caabaaw ca ca ca ca ca ca ca cottogal moodi million hande gubbe mbarangal mi jabata min mi jabata papa njaay tey ñu dalal Abdou Camara nekk koo xamante ni macha allah mi ngi évoluer ci li nga xamante ni moom moo di musique ah di def culture bu am solo muy culture pulaar euh, pulaar nekk loo xamante ni lu am solo la tey dañuy découvrir euh, beneen musique ni ngeen ko tàmmee di découvrir ci biir ambianceur actuellement nag alpulaar yëpp bëgg na mais am na ñu may kalaam ak Papa Ndiaye commencé naa jot ay plainte yu bari ci li nga làkk <laughs> ah waaw ah, lu ñu wax message kay bari na moom ah lu ñu wax li mu làkk ci yoon la ko teg de ah nee nañ baaxul de nee nañ li nga làkk baaxul ni nga ko prononcé neexul Abdou kii xamul ne man damaa bokk ci alpulaar bi. non li nga làkk temps nga ko teg. sama gelu alpulaar bi moom ma ko moom ma ko wax. Abdou la bàyyi boo bu nit kii. Aysata booba xam na sama gel bi bu ci bu la neexee mu jaaraat ci. non mais baaxul yow sa xarit la nee ko baaxul rek. dimbali ko mais bu ci jaaraat da nga xam li mu làkk. xam nañ ne ma làkk dafa baax xalpulaar ni ma. ñee xalpulaar rek a fi toog de. waaw loo wax misaal bi nii wa. moom mooy naa leen. waaw yi ma mujj. waaw mooy baax. baabu mujj. waaw papa baax. bingol benn taam. ah loolu kay Mohamed sa waay li mu làkk baax na Mohamed mbokkum yaay moomoo business moo waroon kalaame naa ma Papa Ndiaye bu mu yàq suñu làkk bi waay Mohamed la Mohamed man la bañ tey ma invité ndaanaan bu rëy Abdou Camara Mara bàyyi mu nuyoo rek Mohamed bëgg nañu ah, bi nga xamante ni moom ñun rek jotee du dem fenn day toog jàkkaarloog celeem Abdou ah, bu baax dalal la di dundaat beneen musique bu bokkut ak bi ñuy faral di ñu ngi lay kontaane di la dalal di la wax euh, soyez le bienvenu waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu waa 7TV yëpp. Uh-huh. di nuyu Mara. Uh-huh. di nuyu Papa Ndiaye. Ah, waaw waaw nga xamante ni bii day dugg ci ruq yi di génne gaa yi. dëgg la moom xam na loolu. loolu xam naa ko. di nuyu xaritam Gora Faye. waaw sama doomu ndey. nekk Kër Massar. Uh-huh. di nuyu waa Kër Massar yëpp. di nuyu waa Kër Massar nga xamante ni. fa nga bàyyi fa laa bàyyee di nuyu waa Jaxaay di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn Fuuta. Mauritanie diaspora bi yëpp. Mhm. parce que li nga wax dëgg la carrière nekkul benn fan nekkul ñaari fan. carrière à la moom la ma Baaba Maal di wax. Mhm. naan ma carrière li li carrière mooy nga nekk fi génération bu ne bu ñëw fekkal fi loolu mooy. carrière am constance. voilà faa nga def buzz mais nga am constant voilà c'est-à-dire artiste boo xam ne da nga fi nekk waaw loolu di nuyu mbeɗa salmina euh, bandiraɓe fulɓe fulaɓe lamdam tuganma tooro laaw booso damga ngenaar ferlo ha ɓundu yaa ngi bëgg a jox maara dëgg de boobu nuyoo bu leer ak beneen bi laay <laughs> laa ndekk lépp loo gis muy xonk ndekk di or doo gis lu xonk rek ne or la nga ni nga ni la mbeɗa salmina bandiraɓe fulɓe fulaɓe lamɗam tugganma toro law boso damga guenar ferlo ha jolof pirde <laughs> jolof maa ngi nuyu sa mbokk bambara yi ma doon nuyu léegi du tukkuloo laa la làkk de bambara laa la làkk waaw machallah eh. am contenté très bien parce que tamit Sénégal moom mhm. ñun ñëpp ko bokk mhm. muy joolaa muy séeréer muy wolof muy njaagum wolof mhm. euh, yaakaar naa boo woyee pulaar wolof bi da koy yëg boo woyee séeréer pël bi da koy yëg dëgg la ñu ni neen la kon. mais Abdou. waaw kan mooy Abdou Camara. fan la fan la tàmmee ay way daf ko donn ci yaayam wala papaam wala gis waykatu tukulóor yi di way rek mu faan leen ne day way kan mooy Abdou Camara. waaw ah, Abdou maa ngi juddoo Ngor gii. nga ni. foowee Géejawaay màggee Kër Massar. macha allah yow bete bete nga. léegi yàlla def. bi ma nekkee lu ndaw parce que ku sa yaay naan woy yaa ko doon woy ba ngay nekk xale kon xam nga ne kooku yàgg naa woy. sa yaay moo la daan wax ni. naan ma ba nga nekkee xale yaa doon woy lii. kon kooku yàgg naa aar. don la bu yàlla jël def ci man mais aw ma rakk buy woy aw ma mag buy woy xanaa sama doom ñëw rek bëgg woy fi bokk ay ma bokk ay griot ngeen ci non non non ay pël lañ. waaw amul dëggoo ma ne la euh, suñu kër woy amu fa ma rek ma ko fa dugal. ma rek maa ñëw yàlla daf ma artiste. ma dugg di woy di woyantu et bi ma juddoo ba tey visé ko yàlla boole mag bi ma ñëw ba Kër ma saar nag. Mhm. dama doon woyantu nii mais nit ñi mais lu sama papa indi teg rek ma ne woy laay def. Mhm. bi ma ñëwee ba Kër Massar la yàlla def ma commencé di wayantu ba yàlla boole ma ak famille Doudou Ndiaye Rose 2003. waaw ma ànd ak ñoom Jibril Ndiaye Rose mooy surtout Doudou Ndiaye Rose bi. mais mais mais mais ànd boobu tourné la woon Europe. boobu dañoo répété fii nekk di répété Petit Mbao ak orchestre mais groupe ballet la woon. waaw fi laa jaar ci ngéwél gi dama jaar ci ngéwél gi 5 ans laata maa dugg ci pulaar bi. ok yàlla def may ànd ak ñoom ànd ak ñoom Italie ñaari yoon. Hmm. ànd ak ñoom Nouvelle Calédonie et 2005 2004 jëm 2005 si laa def ak sama benn xarit xaal pulaar Paco la ñoon waaw ñu def album boo xamante te nii <clears throat> album bi pulaar lañ si way album boobu moomu dugal Mauritanie nag def loo ma Fouta 700 villages biir Fouta. et eh, billaahi ñu def kon yow ñi jàkkaarloog yow nii Fouta gépp xam na kan mooy Abdou Camara. ku la ku la woo ne Foutal dëkk bu bu waxee dëkkam man xam naa ne ñëw naa foofu. ay waaye Abdou loolu waroon naa ko pour pour yéen a bëri ay xale yu rafet. tukuloo <laughs> ne doo ko bandu mi man xal ñoom rek laay topp. mais ay ku ci amul ay abdu ko amul ci xale tukulóor yi dootoo ko defe di nga ci am xam nga kër balaa neex nga am benn géwél benn tukulóor <laughs> mais loolu loolu loolu yow bëgg bëggee da nga koy am ah war ngeen a wax ci man de waaw loolu gaa yaa ngi nii al al problème jibi moo lay yóbbu bokki jàll bi rek dëkku Ablaye Daouda Diallo lay yóbbu may ko fa ko koy rattal meew waaw ah nga xam ne ñuy ratt meew mi léegi jël cere ju tàng jeeg sotti billaay mbaa ñu dafa la njurndi njurndi waaw dégg naa a baax njurndi yooyu yow koo bëgg koo bëgg jabar pël bu jamu fii bu def bu def fii nii wala wala bu deful kii bi. non bu jamu bi laa bëgg. Ah. jamu bu ñuul bi ni affaire bi. waaw <laughs> loolu dafa rafet loolu yàlla bu mu ñëw naa la baaba ba ne lii saw mi. <laughs> waaw defar la ay latir yooyu noonu yu baax yooyu. un petit <laughs> fi mu duggee am na solo. moo ngi actuellement ci début carrière bi. Euh, tey yaa ngi def musique boo xamante ne bokkul ak musique bi ñu faral di gis fii ci Sénégal. mën naa xam li ngay def tey ci musique alpulaar est-ce que nuroo na ak musique bi ñuy faral di dégg ñu naan yeelaa wala yu demee noonu ban façon musique exactement la la Abou di waaw parce que ñun euh, man man lépp lay def waaw mën naa ne musique bépp lay def parce que tamit euh, ku mbapat def 700 village yaakaar naa mënut amatoo limite booy def ci ci kii. Euh, lu ñu la amul frontière. am waaw amul frontière parce que boo xoolee tey ci biir tournée yooyu ñu doon def maag Paco. Mm. tournée yooyu fu cosaan nekk dëkk bu ñëw parce que tooro fuuta du fuuta ñi ñi dañ naan fuuta rek mais fuuta tooro fuuta du tooro rek tooro boo xoolee njum la yem. dafa am fuuta tooro. mu njum dafa am euh, tooro dafa am. laaw ñoom dañoo am seen musique bopp. non am na dëkk yu am seen musique bopp. mais boo xoolee ñi gawlo yi dafa am musique bu ñuy def. ku ci nekk ak culture la lawbe yi dafa am musique bu ñuy def. mais ñoom ñooy teg leget yu bari yi. waaw ñooñu ñooy gawlo yi. ñooy def yéela waaw même même sax lawbe dañuy teg leget. kii mu ngi nii pël mais daa teg leget <laughs> xam nga parce que pël yëpp ay way artiste lañ. Mm-hmm. parce que pël boo gisee ngay gis tey benn ku yore riiti. Mm-hmm. parce que àll bi la jógee parce que pël bu wéetee bu sàmmee nag nag yi suur xam nga. xol bi neex xol bi neex rek mu moolis. waaw mm-hmm. àndandoo picc yi xam nga rek harmonie yi génn. waaw loolu. kon ñëpp ay waykat lañ. àll bi da yéenu ko moom. mais li nga mënee nii ci moderne bi noonu ci ci traditionnel c'est-à-dire euh, ak ay calabas def musique ak ay euh, xalam wala riiti wala yu loolu la ñuy def boo gisee. kii ma indi ko dama ne ko nañ def euh, acoustique mais ambiance la wax faw ñu bool ko am mais ñun bëri na sa acoustique la ëpp lu may def waaw mais tey fu woo. Mhm. man yàlla may ma ne du ma bokk quoi. loolu yàlla may na moom moom moom daje nañ ci ay xeer dañu lay bàyyi ñu demaat ci beneen morceau histoire de faire plaisir à tous nos amis alpulaar ñi toog di ñu seetaan yëpp ñu bégalaat leen ci beneen morceau Abou Camara Abdou. xale rafet yëpp message leen ma tey. <laughs> ma taal da ngay am da ngay am. ah waaw da ngay am. kon jeex na. <laughs> Papa Ndiaye tey jël nga xale yi de. daroo <laughs> rafet couleur yi. macha allah waaye non Papa Ndiaye Ndiaye bi nan tàggulaale la quoi moom alpulaar la. waaw biir ah, ko alpulaar de. <laughs> Eh. ko alpulaar. attaque ñu dem ci beneen morceau. leen soow mi teg mu mi neex Papa Ndiaye seet si sama mbokku pël yi min ngari noon ay naaɓe min ngari noon no maara min ngari noon fulɓe ɓe jere puloye ñaga jala mejo jare ɗam fawe kaggu ɓam fenɗo so tupere fuɗi ngaɗu weltile lappole dow jeere pullo nono jeere fort ci ci live live cest à ngay ngay improviser sur scène. yow ñu lay wax rek ngay def muy neex def muy neex. na ko déjà bi muy mooy seen buur. mais daf doon woy ne may mën a a ko donc loolu woy woo xamante ni ci biir woy yaa ngi ciy wax sa soxla yaa ngi ciy def humour donc yombul ah live yombul. waaw xam nga live moo mooy laal ne dama mbappat. Mhm. ñu bëri dañu yaakaar ne man mën naa mën naa woy programme une ba mu jeex du làkk pulaar Ah parce que ku juddoo fii. mais man bi mu duggee léegi ci may mun a damaa tiit. na ko tey doon sa géwél di la waye taggal ma sa bu nangoo ma neexal sama baat di la bëggal di la neexal. ndeysaan bu nangoo wuru sa ngalam ma tëggal ko xam nga. Mhm. bu taxawee ak ay mbokkam ma ma ma ma. taggal ay moom bi da koo faa daf la xamal ne dafa jaar ci njabootu Doudou Ndiaye Rose kon nag faaw ngéwél gi ne ci moom. la artiste artiste bu ne dafa war am xam nga frigo. Mm-hmm. gars yi ñoo yaakaar ne frigo da ngay ñëw rek dugal ndox mais frigo. Mm-hmm. artiste dafa war am ay frigo. ah man damaa am na artiste yoo de. Mm-hmm. ah yi des nga dugal ko ci biir boo xëyee ñu tàngalal ko ndékki. waaw loolu mooy lan ci artiste. artiste dafa war am frigo am na artiste yoo xamante ne nii mooy li ma damay ñëwaat ci li nga wax léegi. tey mën nga ne woyal ma. diw rek ma xëcc frigo bi génnee am na lu ma fa dencoon loo xamante ni pour moom moo ko moomoon. ok nga indi foofu teg. <laughs> yaa ngi dégg. artiste da ngaa war a bari bagage mais artiste boo xamante nii lu mu reeree mënu ko ndékkee. artiste da ngaa war a bari bagage. da war a frigo denc mais Youssou Ndour la moo tax boo ko woowee tey programme fii bu ñëwee yi mu la woo li mu wooyoon 2000 la lay layawal da ngay dégg. dëgg la frigo yi lay ubbi rek indi. dëgg la. mais ñu ñoo ñëw taxaw ci programme di làmbut rek. ay saak la. waaw. <laughs> yoruñu ay frigo gars yi daal di final la dina ci ay chargeur ah, rek. da ngaa war a bari bagage ay téléphone am répertoire bu riche. dëgg la. mooy frigo yi denc denc ko fu wóor. loo soxla ubbi. Mhm. xam nga mais mais mais mais Abdou. est-ce que du li nga jaar ci waa kër Dundaay Rose ba pare yemoo foofu Mara. Mhm. nga demaat ba jege ku mel ni Baaba Maal pour rootaat ci moom. Mhm. waaw surtout Baaba diggante ak moom Baaba. waaw Baaba kooku. sama xarit la. koy nuyu bu baax a baax suñu suñu suñu tons la. ñu koy nuyu. yàlla def euh, maa naan ko baaba yow lañ doon roy ba dooni waykat. Eh. yow la ñu roy ba mu nekk suñu métier. mais sax ni nga roy nit roy roy nit ba la nga ko doon royee sax fan nga jaaree fu mu nekk sa métier. mës ngeen a ànd def dara yéen ñaar. waaw Baaba Maal def nañ lu bari ba Zénith ba le paase rek def ma yóbbu ba pare. yóbbu ma Zénith. bi may joué grand bi may joué Sorano mu ñëw barki dem bi may def anniversaire Mawla Ba mu ñëw toog ba programme bi jeex. ndeysaan mu nekk koo xamante ni ku ma fonk la ku bàyyi ci man xel la. Hmm. ba pare moom moo tax ñu bàyyi métier yi ni suñu papa bëggoon ñu def. Hmm. ñu topp Baaba Maal ba bàyyi métier yi paa yi bëggoon ñu def. Hmm. ñu def ñu def moom lu ci li mu ne. donc tey bu ñu doon laaj sa idole. waaw Baaba Maal idole la. Baaba Maal idole la parce que Baaba Maal euh, boo bëggee ci moom ngay roy pour mën a woy lu yëngal xaal pulaar yi. boo gesoo Baaba Maal jël ku mel ni Abu Juba. waaw mm-hmm. parce que ñaari pulaar. Abu Juba boo xoolee tey pulaaru jolof bi. Mm-hmm. Baaba Maal nga yóbbu ko Fuuta ku nekk am na. koo xamante ni tey bu pulaar pël jolof bi toogoon fii léegi xam naa ci kan laay wéeru pour wayal ko lu daw yaram. dégg nga lii bu fuutanke bi toogoon xam naa nan laa ko war a wayalee pour yëngal yaram. très bu undungu bi toogee war nga xam nan nga koy woyee pour yëngal yaram. Abou Djouba moom it un grand monsieur de la musique. kooku yaa woy lii la man may foo de li mu woyoon ci Jombaajo lu ma neex la. te noonu te noonu la oyofee. ñoom ñëpp li mu daan woy ci Jombaajo. man loolu li ma ko jaxase naan. Ediselo <laughs> Ediselo ah bala daal di amagu ma xar amagu ma xar ah, ah seetaan ngeen ma. pël yaa pël bi ñu seetaan loolu. yaa ngi dégg. ba pare yàlla def. Mm-hmm. ñu am fii parce que boo xoolee euh, côté olof bi nu mu mel. waaw euh, côté bi boo xoolee mën nga ne sax bëriwul buuxante terrain vers la bëriwul buuxante quoi. par mm-hmm. rapport ak ak côté bi olof yi nekk fee. fii boo xoolee boo ne Baaba Maal Abou Juba. Mm-hmm. yaa ngi dégg. boo su naree teg keneen sax da ngay xool da xool kan laa ci war a teg. mais Abdou Abdou Abdou Camara est-ce que jotul année bii nag nga dëmb gars yi jàppale la pousse la pour nga téye affaire bi ndax mag ñi li ñu war a def yëpp def nañu mais yow ku la gis nii ngay way day xam ni kii nangul na mag ñi roy na leen mais nag dafa des jàppale wala lan moo des Abdou pour nga fësal yëf yi. waaw xam nga. waaw tey bëgguma woon yéeg ci kaw rek. fekk yóbbaale ma dara ndeysaan ndeysaan sama gars yu bëri day ñëw rek waaw bëgg a forcer cours des grands fekk est-ce que lii kenn du ko sote seen mëneen lañ fay def rek pour yéeg mhm. sa xaalis na ngay def rek pour yéeg mais yenn saa yi yow affaire bi def la yéegal la ci kaw ba war a jox la loolu la Souleymane fay naan bàyyi leen di yéegal niveau yi bàyyi niveau yi yéegal leen <laughs> voilà kooku dafa dégg gis nga waaw loolu dafa dégg waaw léegi te lu jot rek day yomb di nga gis nit mën a way mhm. bu ne der nga ne kii ma mën a way mhm. mais jékki-jékki mu xool ki nga xamante mënul way mu ne ko booy doo ma jox foofu juróom ma jënd ndox mhm. yàlla moo bëri nu mu defee mhm. mais Baaba Maal tey boo nee Baaba Maal tey ak année bi mu juddu Baaba Maal premier album mu génn 2006 premier album Baaba di xaar xam nga Baaba Maal mën na nekk Baaba Maal rek mu dund am 14 ans rek daal di génne album fuuyul waaw reewul beewul te ñu bëri xamuñu ko ndax dafa bëri barke. Hmm, dëgg la Baaba Maal lañ lañ mës a defal clip mu ñu ba këram. rayal ñu xar jox ñu ay yéreem ba pare fayuñu CFA. ndeysaan Baaba Maal moom mu njëkk a jox paaw. ndeysaan dëkk bi samay ay doom juddoo tey moom mu njëkk a jox hmm. xaalisu Angleterre nit ku am barke la nga ko. gis nga boolewul dara quoi jibi mi toog ni ànd naag Baaba Maal fu ne. Hmm. jibi mi mii. jibi mi yow est-ce que mën nga dem Maroc yow Baaba Maal nga dem Maroc. Màkk rek la demagul Màkk. woo yaay. te yàlla loolu kon wax di jeex na nee na manqué rek nga demagum mais Abdou tey en parlant tey ngay waxtaan ñuy waxtaan tey une légende comme Baaba Maal est-ce que tey jàpp nga ne héritage boobu Baaba Maal yor am na tey ay xale yoo xam ne war nañ koo mën a gérer parce que Baaba Maal peut-être tey moo ngi ci benn niveau bi mais am na yeneen xale yoo. xam ne léegi ay film américain sax dañuy commencé wayam ay voilà donc Baaba mën nañu wax ne léegi. dafa am loo xamante ne héritage la bu mu war a bàyyi ak xale yi sànq yaa ngi koy wax léegi-léegi ku mel ne Abou Djouba peut-être ku mel ne Ousmane Gangi daan nañ ko dégg mais léegi am na peut-être xale yu bari yoo xamante ne waroon nañ mën a téye relève boobu noonu mm-hmm. est-ce que tu penses que ni am na ay xale à yow yoo xam ne war nañ mën a téye relève waaw gaa yi gaa yaa ngi fii xam nga pulaar dafa gaa yaa ngi fii boo dee Mauritanie fekk ay ndaanaan mm-hmm. euh, Ousmane Gangi ba léegi mu ngi toj Mauritanie nii nit ku baax mu ngi toj Mauritanie nit ku baax xarit la toll nii ku bëgg nit nee naa fii baali ugge bi da <coughs> boo xoolee mu Fuuta boo fa demee. Mhm. da ngay fekk ay boo yoo xamante ni ay yaa wëli lañ. Mhm. dañuy woylu dañuy woylu. mais lan moo war a làqatu boobu pourquoi mënuñu ñëw Dakar. bokk ci àll xam nga xam de xam nga affaire bi lan la. Mhm. pulaar yombul la wooyee. dañ dañ koy bañ parents yi dañ bañ. dafa am olof yu bëri yoo mën a am ah, wax yu bëri yoo mën a véhiculer ci pulaar ci olof bi. mais boo ko jàllalee ci ci pulaar bi rek dafa am lu muy nuru xam nga tey boo ne ràccal ba comme am na benn ràccal ràccal olof yi bu ñu du duñ jël moo ràccal yemale ko ci ceeb wala yemale ko ci mbaxal olof yi hmm. boo nee ràcc dañu am waaye ngañ dem gàlle ñu ràcc waxtaan quoi waaw moo la boo xamante nii mën nañ ko yóbbu ci lu ne ubbil ma nag ma uddit uddit uddit nam boo ko waxee ci pulaar dañuy xeex ak yow paaye ñooy njëkk kii la ubbi uddit ubbi Papa Ndiaye baal jàmbur waay. <laughs> ay wax yoo xam ne tamit nag. waaw xam nga xam nga moom dafa fi mu nekk laa. waaw wax rëyul de déggin moo rëy. ubbil wax na dëgg xam nga tey. wax rëyul déggin moo rëy ubbil ma ubbil ma. ci olof mën na bañ a garaaw. mën na bañ a garaaw. mais mën nga ne ubbil ma sa buntu kër gi. waaw ubbil ma sa oto bi ubbil ma sa. <laughs> foo jaar foo la jëlee ñu bokkul. xam nga ubbil ma. yi mel noonu boo ko génnee ci ci pulaar sax. waaw yow dañ la dañ la koy dañ la koy tuddee. ok ah bon tur boobu ngay demaale benn yoon. comme boo xam nga léegi ràccal ma. waaw mooy ci pulaar lañanam. nga lañanam. way naa ko man way naa lañanam ma dégg ràccal ma ne ñun ñun am nañ ñi am nañ am nañ ràccal ma mais ñun am nañ lañanam mhm. ñun moo bu olof am benn ñun am nañ dañ koy am ñaar ñett mhm. mais boo ne lañanam rek ko njëkk a dégg day day xaxataay bala bala moo bégee morceau bi ba pare. comme ku bëgg nee na kuy fëgg yooyu garaawul ko yooyu garaawul mais léegi mu ngi changé mu ngi dañ mu ngi commencé dañ nag. parce que fi muy waxee mooy da léeg-léeg dañuy am difficulté wu way yenn way yi. ci pulaar ci pulaar parce que ki koy da koy jox way wi da koy jox leneen. da koy jox lu garaaw. ok mun na am fekk yow yow garaawuloo. mais avocat wax dara rek moom moo xelu nit ñi de nit moom nga sa xel mais xelu nit ñi moom kenn moomu ko. xam nga dama ne. lañanam. waaw lañanam su ubbi ñaminam. mooy lan mooy ràccal ma. waaw bu seddee seexal ma. yow li nga wax ko tamit ci kii nu mu wax garaaw léegi duñ dem boobu est-ce que. non munoo ko firi ci. xam nga la bu ba mooy lañanam boobu sax ñoom ñoom boobu siiw euh, culture. Mm. ak seen ay valeur peut-être du leen permettre ñu ñu wax yenn yi seen kilifa di ko dégg foofu lay waxee. ah parce que xam nga ñun suñu artistes yi mën nañu woy ay may ma sëli xam nga ku ma gaaw la génnoon na fi may ma sëli mu indi woon coow. Mm. tu ci jamono may ma sëli sëli sëlee am na yeneen artistes yu fi jaar génne yeneen façon parole yoo xamante ne rek voilà yoo xam ne yàggul dara am na ba xaarim temps xaarim temps génne woon na fi xaw ma sa bigga bi non avant boobu am na beneen bu mu génne woon bi mu naan xaw ma nga bàyyi yaay bàyyi bàyyi. après loolu dafa indi ay ay ay na bagage yu dugg na bagage yu dugg très bien. boo ko waxee ci pulaar day. comme ñoom dañoo am ay valeur dañoo am ay valeur foofu lay waxee voilà. dafa am yoo xamante ni ñoom. Mm-hmm. kon yéen seen mbay du yomb. parce que yii nit ñi dañ bëgg yooyu. ñu ngi dem ñu ngi commencé. kon yow bu ma la naroon woo bàyyi ma xoolal la beneen parce que ñamal ma ci laa la waroon woo te ñamal ma ci mënoo ko. <laughs> non ñamal ma ci. <laughs> waaw. <laughs> Abdou lu muy dañ barke yàlla da lay dugal. baal jàmbur bàyyi Papa Ndiaye da lay dugal ñëwal ci waay yi mais loolu mu ngi dañ sax li mu ko wax nii commencé na dañ. mi ngi koy dindi mais yombul quoi mais day dañ. Mm. waaw mais est loolu du leen indil handicap bu fekkee que ne peut-être mënoo leen ci seen euh, langue ngeen exprimer wu. Mm-hmm. way yenn way yi ngeen. yenn wax yi est-ce que du leen porter handicap. déedéet léegi moo tax ma ne ko da ngay dem ba maîtriser loolu xam nga ba yéeg xam fan nga leen di jaar. dégg moom daanaan la comprendre ba xam fan nga leen di jaar nga doog leen mën a woyal loolu moo tax ma ne bëri nañ mais boo gisee mu xaw a vide nii. Mm-hmm. mooy ku ok faaw nga xam nooy teggee affaire yi. maanaam boo juumee duñu la baal. duñu la baal. ok. te mën nga liggéey fii ba kii nga def lu ndaw rek xam nga ñoom ñëpp ñu taxaw leen na le. kon loolu moo la wane ne Baaba Maal moo tax yombul ko moo tax Baaba Maal ndaanaan la. xam nga duñ ko baale quoi dina am ko bëggee nag mais. am na yoo xam muy yàq mooy ëpp quoi. dañ lay fay sax dañ lay fay. ok ok dañuy demaat ci beneen morceau li des ci waxtu wi xam naa ne bareetul et actuellement suñu mbokki alpulaar yëpp ñoo ngi ñuy topp di ñu bàyyi xel di béggee émission bile di ambianceur nga xamante moom saa yi ethnie nekk moom moo di culture barki démb maan dañuy la woon tey alpulaar la suba pourquoi pas mu doon séeréer ba ginnaaw suba mu doon maajag yi lu nekk mën naa xew ambianceur la ah, ñu dalal ki nga xamante moo di Abdou Camara di doomi alpulaar mi ngi ñuy bégal booboog léegi ci musique bi mooy ban nañ demaat ci beneen morceau Abdou. bi eh, day wax ci ci ci càmm gi day wax ci ci àll bi. ok gàncax gi buñ taal. daay yéen ko moom buñ taal buñ taal daay bi. li nga doonu ngay way way ko yaa ko doon ñëw ba ci kii tux cigarette sànni ko ci kii xam nga àll bi ñax yi. environnement bi environnement beeg yooyu noonu xam nga buñ ko yàq. ok yi demee noonu lay wax quoi. maanaam war nga dégg loolu. wóoyum sensibilisation la quoi lan ngay sànni rek naan di sànni. kaas sax wax la loolu baaxul. ah ok acca wayal ndax maanaam xam te nga way ko way ko ci sax moom. na la jàpp affaire yi man de mënu maa jàmb waaye naa la jox ma sëriñu Papa Ndiaye bi mu jàmbal la. Papa Ndiaye am na sëriñ bu a a fay la ñaari loxo yi lay jàmbee. góor a fay la woto duppulade nde kolade aynaɓe woto duppu saare nde ko saare remoɓe men so jamano weli nonnugo fulɓe aynaɓe so jamanu weli noon ko fulɓe remoɓe ndamaka ko nenam pullo puso jaako tanam fulo he tanam penda sofi dem jibani babo fulo mo mbake bawal kayel nungu ka yo lele o lele ha yo lele ha mata siro siro del guna guna saloyo ki hamadun salo e sajada babiram tanam nanam bake bawal muruna eh kelle mon daw fulbe dade mon daw majitana dala sere féex nañu fexe mu neex nañu fexe mu am jàmm jàmm la ñuy jàmm la ñuy ñaan Papa Ndiaye ñaayoo ma ne tukulóor séeréer bambara naan tukulóor séeréer bambara ma naan tukulóor séeréer bambara animateur journaliste politicien et bël ak wolof bee tey ñu dem ba Mauritanie sama dëkk ba waaye waaye bu ñu fa jógee ba Sénégal njaay ay waa ñu dem ba Kër Massar gi nga waa waay dem ba Pikine sama dëkk ba waaw ñu ñaan ko ñu ñaan ko nga ko créer te loolu dafa war a doon morceau macha allah ah tukulóor bi ak manjaago bi séeréer bi ak wolof bi nañu fexe mu féex nañu fexe mu neex. xam nga dafa dugg jàmm rek moo jar a ñaan. ma gis ne fi gitaar gi di wokku. waaw jàmm la ñuy ñaan xaj na fi. waaw naan day seeti ndaanaan. bàyyi si waaw loolay dëgg en tout cas kontaan nañu actuellement cinq minutes cinq minutes moo ñu desee pour ñu dem ci flash d'information bi te bëgg naa nga am leneen loo tëjee en tout cas réaction yi bari na ba waa Tambacounda ñi ngi ñuy bàyyi xel di ñu suivre bu baax a baax ñi ngi leen di nuyu euh, kii mi ngi ci Facebook bi am zo dollar lay wuyoo ma nga ca Tambacounda nee na macha allah Abou Camara ñu ngi lay bëggee suñu xol sedd na ci yow. waaye itam ki nga xamante ni moom moo di MC Modi Guèye nee na macha allah. waaw nee na macha allah courage grand frère. am na keneen koo xamante ni moom pulaar la bind de mu ci bind daal li ma ci mën a lii dafa mel ni mooy. non non non non min min mel ci ma dégg naa ci loolu. waaye mënoo lii pulaar mënoo koo lire. waaye kii est-ce que nit la mënoo lii pulaar ana pulaar bi. moo ngi nii <laughs> moom daal gis naa ci min meltima. min mooy kontaan nañ mooy kontaan nañ très bien. ah déet waxuloo kese xamoo dara xamoo dara min daal gis naa ko ci li ci des dama koy dama koy bañ a liir di def erreur de de de de prononciation. loolu laay bañ voilà am na keneen koo xamante ni Mar Camara lay wuyoo. Mar waaw Mar Camara. moom aussi nee na Abou Camara la belle voix donc. baax a baax. ñoom ñu ngi ñuy topp fu ne réaction yi mënuñu lire ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel ci leen di kontaan en tout kontaan nañu dañu lay bàyyi Abou nga tàggatoo balaa tàggatoo bi Mara non wax tamit nag yii loolu laa bëgg mu ñëw ci projet yi est-ce que am na ay salles yooyu prévoir mais c'est que waroo mën di woote yenn yoo xam ne ah sa mbokk pulaar yi léegi ñëw a góor am na solo mhm. euh, di nuyu MC Mody mhm. léegi rek ñoo nekkoon kër ga mhm. di artiste bu mag rappeur boo xamante ni xal pulaar yi ko xam di nuyu di nuyu non amul problème di nuyu ñoom Paco la ñol di nuyu gaa yëpp par sama rakk la ñu bokk ndeg baay euh, yàlla defal leen jàmm. amiin parce que lii dafa dafa yombul. MC mhm. moo di misaal ma ni ma di ñoom Mbaar ñoom Pako Gaayab di nuyu waa Kër Masar bàyyiwuma kenn. waa Tamba yeeg Tamba waa Mbacke am na ay ba Mbacke diaspora bi mhm. yàlla dafa def euh, maa ngi joué. Mhm. mais euh, boo xoolee barki dem maa ngi CICES anniversaire Mawlo Ba. dégg naa loolu. waaw ménagère wax na ma ko. waaw maa ngi foofu def nañ fa programme Ba ñëwoon na. Euh, temps yële passé maa ngi woon. Sorano. Mhm. xam <clears throat> mais war naa ñëw wàcc si genn bi comme ni ñu koy waxee. waaw ñoom góor a wàcc si. Mhm. mais Kër Masar ruq boobu. foofu wàcc. waaw ruq boobu waaw dañ fay def dara. ah mais su ko defee am na lu ñu doon wàcc euh, Mauritanie. Mhm. xam naa ne bëgg naa bala maa def loolu sax ñu jéem a teg fii parce que Dakar mooy carrefouru musique fii. Dakar mu ngi nekk Mauritanie. Dakar mooy Carrefour bi fi la ne. ah rond-point fii. saa neex na nee bi muy théâtre maam dana ko boo ci bëggee génn. <laughs> demal Dakar demal Dakar. fii parce que. waaw ah. mën nga nekk Mauritanie dafa toj di. toj mm. Mauritanie nekk star bu mag. Mm-hmm. mais boo wàccee Rosso rek kii mais di nuyu ñëpp. waaw di jaajëfal ñëpp. remercié ñëpp samay xarit. Euh, Pape Maguette jeexal ah ngi nii. waay Babacar nii di sama xarit def lu nice. Mm-hmm. Amadou Koulibaly bu leen wooyee taguñu sabaat dañoo mm-hmm. bàyyi lu ñu doon def yëpp ñëw. di nuyu waa Jaxaay xam nga ñoom mama di nuyu ñëpp di nuyu sama soxna yoppal ngay wut mais man naar laa yor quoi. ah waaw man naar laa yor. Eh, dal maa ngi ñoo yem. dal ngeen non bàyyi mu tukulóor ak ñu tàggatoo 30 secondes. non may naa la ko man yow defal la neex. kontaan nañu ñu ngi jaajëfal suñu invité bu baax a baax ah euh, Abdou kamara nga xamante ni moom itam ndaanaan la tey moom dundaat nañu beneen musique boo xamante ni kontaan nañ ci. mais lii moom may ma ko ndax yow la nuyu. waaw Abdou Wahab Abdou Wahab. mais defal na Baba Mbengue loo bomb atomique boo xamante ni. waaw non Baba Faamu waaj a tàkk ci interview waykat yi xaar leen xaar leen Baba ngi ñëw yàggul très bien Pape Maguette on se donne rendez-vous kon lundi incha allah rabbi ñu del si waat bu soobee yàlla jaajëf rafet na à lundi bu soobee yàlla yaa cool bul jaay sa ngor